Euh, sorti monsieur le maire ñu ngi koy rafetlu ndax véritablement dafa nekk sorti boo xamee ni qui vient à son heure qui vient à son heure parce que contexte bi mu ko waxee dafa am solo trop muy contexte euh, Covid 19. Euh, ñu rafetlu nag que le de la ville bu kenn ñëwati si moom di ko wax mbiru Cheikh Ba walla Seydou Gueye ñun waa CATB ñu rafetlu véritablement loolu ma jàpp ni nag ni ko monsieur le maire waxee suñu amee tuuti fàttaliku Cheikh Ba bi mbir mi amee le président de la république Macky Sall joxe ndigal Cheikh Ba dafa tendre la main à tous les fils de la Médina rawatina moom monsieur le maire pour véritablement pandémie bii nga xamee ni mi ngi lëmbalee àddina rawatina fii ci Médina ñu ànd def benn donc ñun suñu toogee aujourd'hui dégg lu ni mel monsieur le maire wax ko en tout cas ñun waa CATB surtout man le secrétaire général Gallo Thiam man day damay rafetlu loolu donc di wax rek ni ñun waa Médina dañu war a ànd dañu war a booloo surtout lii nga xamee ni mooy mbas mi nga xamee ni mbas bu am solo la mbas mi nag ànd moo koy faj yéenante jàmm moo koy faj booloo moo koy faj ndax Médina lii xew ci mbas mi nekk na loo xamee ni ñun rek ñoo ko mën a faj et je pense que quand monsieur le maire euh, attiré suñu attention si loolu il était tout à fait normal que ñun it aussi ñu wax ko jërëjëf ci li nga xamee ni wax na ko te yaakaar naa ni tamit disposition yooyu mu wax Cheikh Ba ci loolu rek la mës a nekk ànd ak doomu Médina yi fonk doomu Médina yi respecté ñëpp parce que c'est un républicain.